mbokki internet yi comme niñ leen koy defale sa suna rek tay la Rose TV ñew set si ko xamanteni xam-xamam dafa macc ci walu paj euh duñu def rek lu bayiku mu nuyo wax ñu mom moy kan ñu ñew ak mom ci laaj. waaw asalaamaaleykum asalaamaaleykum Ndiaye euh, ñu lay nuyu de la sante li de la gërem di gërem nak wa la Rose TV euh, yàgg leen dégg lool ma sha allah di leen yàgg suivre di leen yàgg setan Euh, di kontaan ci yéen di nuyu nag euh, waa Cité Tawfekh ñàkk gi yëpp macha allah macha allah di nuyu borom kër gi mu nga xam ne mooy sama borom kër euh, Aliou Ba maa ngi koy nuyu bu baax mooy chef de quartier fii ci Cité Rose nuyu naa ko bu baax di nuyu waa ñàgg ñi nga xam ne bu ñëwee ñoo dalal fii maa ngi nuyu waa ñàgg bu baax muy ñàgg olof muy ñàgg pël nuyu naa leen ñun ñëpp ñu ma sekkal dikk ci dikk dikk bu rafet. yooyu faje waaw macha allah Ndiaye man damay yëngu ci wàllu faj ci samay maam ci sama juróom-ñaari maam yu góor ci sama juróom-ñaari maam yu jigéen dama ci yëngu xëy na am na ñu ma ci xam am na tamit ñu ma ci xamul ndax dama ciy yëngu waaye eh, loo gis daal olof Ndiaye ne lu jot yomb. Eh, man damay faj eh, ci wàllu feebar dama ciy faj ngóora góor gi nga xam ne néew na doole. Euh, macha allah dama koy faj góor gi nga xam ne day nekk góor sax mais day dem ba ci diggante bi mu am problème mu teel a yegg fu ngeen baal ma ciy wax bi ndax euh, comme faj la ñu wax il faut ñu wax lépp mu a yegg te foofu loolu dama koy faj ki nga xam ne ndiggam day métti muy càng ci wàllu lal bi dama koy faj ki nga xam ne daa jeexal tàkk nekk na fa tamit waaye jeexal tàkk mais judduwaale wu ko tamit incha allah dama koy faj. mais su fekkee da ngaa judduwaale nag njaay loolu moom fa lañ koy baax ndax mënuñ ci dara di jigéen yi nga xam ne amuñu doom ñoom tam da am problème ay perte balaas ak ay tànk yu métti ak tamit ma ci yëngu ay xale yi nga xam ne seen biir yi day daw ñuy wàccu tamit ci eh, tiit loolu tam ma ciy yëngu di yëngu na ci ay sàngat ñi nga xam ne dañoo amul borom kër walla dem ba tas bu gàtt dajewaat ak seen borom kër pour ñu def jubale tamit yàlla def na damay def ay jubale am na ñu ma fa na am na ñoo xam ne suñu ma seetaanee tey dañu waaw am na ñu ma faj fi ba yàlla def ñu am ay doom tamit doom nag yàlla moo koy joxe mais loo gis sabab sabab lu la rek man yàlla laay ñaan waxee mën naa li mën naa li bu ci yàlla andul it if du mën a yegg kon nag man yàlla laay ñaan yàlla dama def sutura moo ci may may seet tamit ci kurus may seet ci kurus man nag li ma sama papa wax rek Xadijatu li ma la jox dégg laa la jox naxuma la incha allah bul xaccu dara mais lu jot yomb boo yemee ba am ñeent fukki at dem kaw nit ñi incha allah dinañ la wër man nag njaay xaccewuma dara dara dara damay xaar lu jot yomb xam naa daal ma sama papa jox naxuma ndax maa ngi ci defal ay ñuy gis waaye xëy na waa ñàgg ak li ko wër xëy na xamaguñ man li ma gis may defal sama activité ji dem di ñëw rek mais xëy na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul loolu moo waral tey nag njaay ñëw jàkkaarloo man fii di waxtaan man am na yeneen te yoo xamante ne pulaar nag lay xam lépp wax lépp yàq la am na yoo xamante ne waxuma ko mais am na yeneen. macha allah dama kaa doon bi nga demee ma bi nga dem ba ma juddoo ba yàlla def ma fekk samay waajur sama waajur bu góor maa ngi koy nuyu muy xaaruna ba ñëpp xam ko ci noa soot gi du nuyu sama yaay booy muy billo sow ñëpp xam leen ci loolu. may jàng eh, ñoom may toog may toog seen wet ki sa yoon toogoon léegi sama mag la Jeynab Ba ñëw na moom tam mu ngi fii maa ngi koy nuyu mag mag mag yaay la di ko sama mag bi nga xamante ne mooy Fatmat Xaaru nuyu samay rakk yépp nga xam ne ñoo bokk ndey ñi ñoo bokk baay nuyu leen ñoom ñëpp baay ma kenn ñi nga xam ne ñëpp yàlla dafa def ñu jàng ko ma sama mag bi nga gis ni yor kurus macha allah yàlla may na ko moo moo maa topp ci moom waaye man damaa teel a sob teel a bëgg affaire bi teel a jàng bi nga xamne jangal nañ ma nak am sam benen maam bu nek fuuta mom tamit am lim mo doli ndax aduna mom say waajur dinay jangal say maam jox la dolli la sama papa nak bi nga xamne amna am naa ma dem noisot def ay jéego ma def ay yore yu reey reey mais bu la yoré tak la nga yor borom kër su fekke bu la genn genn yu bari motax waral ma tok fi ba su fekke da doon nangu bay genn genn yu bari kon batay ma nga ay France xeyna ak ay arab Saoudite ak yoyu ndax dañ ma soxla ay noix soot ak noix di bu yëpp dañ ma doon soxla xam naa bu ñu ma gisee nañu kii xam nañ ko waaw loolu moom. waaw kurus bi moom macha allah ma dama doon def pettaaw mais xam nga man damaa bëgg euh, julli lool bëgg nag euh, sala jël fiiru salaatul faate bi bu yàgg euh, am ñu sëriñ yoo xam ne dañu naan bàyyil pettaaw may xool pettaaw du si gis loo xamante ne nii. macha allah macha allah yàlla def nag um, ma dajante sëriñ bu mag maa ngi koy nuyu um, mu tudd Alsan Ba ah, yàlla def mu jox ma secret bi ci kurus moo jox ma secret bi ci fanaanoo mais fanaanoo tamit ngay jigéen yoo xam ne yar nga borom kër taasa laa koy def mais damay fanaanoo damay def kurus léegi léegi njaay boo soxlaa ñu xoolal dara nga ne ma xoolal ma li su ma la xoolal de plus day antu ma la njaay lii day antu su fekkee antuwul ma ne lii de moom antuwul defe naa am na suñu Euh, secteur bi bu ñu ma déggee fi nañu xam na li may wax am na ñii football feeg yëpp xam nañ ci man ci loolu. da ngay yëngu ci wàll football. xale yi sama waa koñ bi ñuy football ñu ñëw fi ma leen di xoolal ah, am nag euh, football boo xam ne amoon na fi ma xoolal leen xëy xam nga rek koo dikkal moom yenn sax du la xam am lu ma leen ci wax mais yàlla defoon na keroog métti woon na lool. ñu demee ba ñëwaat ci man nag ma ne ko léegi affaire ko xam nga tubaab lañ doon daje xaw ma xaw ma dem na du ci mun a def dara fi ne nii ndax ba ma leen waxee ngeen ñëw wax naa li ngeen ñu def sarax ngeen bañ ba tey ma fekk leen ci hôpital bi ngeen football pare ngeen am ay problème ma fekk leen hôpital bi leen seet waaye ñooñu bu ñu ma dégg nañ dégg laa wax xam naa ko ci mel ne démbel kaa ñoom ñëpp kër woote woon nañ ma fii ndax déggoon nañu affaire bi mu demee woon Eh. kon fi toll nii su ma la waxoon xoolal ma nii ci wàllu si léegi léegi nii nga xoolal ma wax ma. man soo waxee xoolal ma léegi nii ma xoolal la wax la mhm. waaw. Mhm. Eh, moo waral tey dégg naa ko ci eh, da euh, loolu gis ni dafa bari loolu de am na loo xamante ne moom euh, feebar la mu ngi tudd puubri. su fekkee jàpp na euh, ku góor ki ku góor ki da koy walla jabaram su fekkee ku góor ki dafa am ñaari jabar ku góor ki da koy walla ñaari jabar walla ñetti jabar ñoom ñëpp nag ku ci nekk sa ndigg day jam di métti sa nakka di métti walla ngay indi ay xeet yu neexul ngeen baal ma ci waxin bi mais comme nee nañu faj euh, dañuy wax nag euh, ba mu yegg ñi xam ne lii fii la dem comme faj la loolu moo tax waral may wax loolu léegi nag ngay am problème sa jikkar nag boo amee problème yooyu nag da nga naan sama wujj bi ba ma liggéey kee tam naa kii ama am waxtaan ci loolu ku nekk daal yor kii ama liggéey kii ama liggéey ku gi tamit su fekkee dem na ba ñëw jabaram defe ne kii daa dem caaxaan daa dem fooy commencé fi mu war a yegg du ko yegg di commencé tuuti rek affaire bi mu daal di yegg fekk moom warul yegg fi mu war yaakaar naa am na ñoo bu ma déggee fii wala ñu gis ma xam ne ndax am na ñu may jëflante fii ci loolu tamit ñu ñëw fii yàlla def seen aju tamit faju waaw loolu moo war bu la jàppee da nga am problème ñàkk am doom wala nga am problème ndigg wala nga am problème nakk buy métti wala am na ñoo xam ne ñëw nañu fii na bu ñu ma gisoon tey koo xam ne ñëw na fii du tuur deret ndax euh, bu ñëwee fi jógee côté defe naa sàngal kaam la woon ànd ak jabaram yàlla def na ma def ci bi ma ci defee nag yàlla def sutura mu am doom am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon côté géejiwaay fale am na koo xamante ne ñëw na te ma defal ko ma dem ba boot doomam xam nga man dama xaw may fàtte ma ñëw nuyu ma fekk ma toog sama biti rakk mu naa mën na nga def bu boot benn doom mu ne xammee nga ma ma ne déedéet xammeewu ma la mu ne alide waar fa nit ki ba mu boot doom nga ne xammeewu ko ah, wax nga dégg wax nga dégg wax nga dégg ma li ko nag ma xam ko xam nga man faj bi nag doo wax fañ naa diw ki nga xam ne moom nga faj moom moo def wax diw fañ ma kooku indil la keneen kooku indil la keneen loolu moo tax du ma wax seeni tur mais am na ñu ma jëflanteel fi suñu bi gisee dinañu xam faj bi amul wax ci wàllu lan ak lan ngay ngay ngay yëngu ci sangat. waaw wàllu sangat moom dama ci affaire euh, bayre wala ku umu rek ku am problème mi nga xam ne daa dem liggéeyam càng wala mu umu wala mi nga xam daa bëgg njaayam gaaw wala ngi xam ne day jaayu wala jigéen boo xam ne jaayu mooy nag nekkul wàllu caaxaan nag jaayu mooy ki xam daa bëgg am jikkar yàlla may ko boroom kër su ma ko sàngee góor ñi dañ koy daw wër mais ñi koy wër nag duñ wax caaxaan ku yi ku njëkk ñëw ne da nga tàkk damay tàkk xëy na am na ñu ma jëflanteel fi tamit ci loolu su ku ñëw danga damay tàkk ndax man du defal nit ko xam da ngay daan dem defal ma ma caaxaan déedéet man góor gu fi ñëw na leer na boo ñëwee takkal ma defal ma diw ma tàkk ko na na la wóor na yow bu ñu ma defal da nga koy tàkk su fekkee suma ma la ngay fooyee doomu jàmbur du ma ci dugg man ay caaxaan doxuma ci boo ma xoolee sax man doxuma ci ay caaxaan loolu moo waral sax affaire mbir mi. bu nit bu euh, mm, mm, damay xam ne carrément kii day takk kii. ma wax dëgg wax ay caaxaan doxuma ci. su fekkee takkoo ko da koy nax dama naa ma doomu jàmbur du dugg ci ay nga koy nax ndax njaay lu fi waaye def yow man xiyam dañ la koy laaj te fii nag dañ fiy jaar jàll àdduna moom ñett fan la démb ak tey ak suba comme àdduna ñett fan la kenn xamul tey la te xamul suba la maa ñaan yàlla lépp lu ma woote fi ma ne mun naa ko fii ci Tawfekh ñàgg quartier Aliou Ba bi fekk dama kaa mun ñaanuma yàlla woote fi xam ne mënuma ko ñu ñuy daw ñëw naan kii cim ñaanuma ko yàlla ndax fii dama fii dëkk looyu ma sama jikkat mooy chef de quartier te kër gi macha allah moo ko moom kon na damaa bëgg lu may def fi mu leer waaw loolu moo waral léeg-léeg nga euh, war a ñëw ci musiba wala ci balaa waaw loolu moom euh, su ma seetee man samay ñaar rakkare laa yor su ma gisee dara luy ñëw ma ñaan ci euh, yàlla na yàlla def lii jàmm damay ñaanal waa réew mi di ñaanal njiitu réew mi nga xam ne moo fi moom dafa yàlla teg tey ne bu ko yàlla tegee dañ koy dañ koy may doole dooleel ko ndax ki nga xam ne tey mooy Macky Sall yàlla teg ko fi dama koy ñaanal toujours mu wér wérle di ñaanal na waa adduna bi toujours su ma jullee di ñaanal samay doomi mbokk sax ay damay samay doomi xarit mu yàlla may dama xol boobu di ñaanal waa dikk bi ma nekk noonu la ma yàlla defee sama julli ndax yàlla nee na 3 heures du matin wala 3 heures 41 ku jóg jàkkaarloo man julli ñaan ma rusanala gantu kon na man heure yooyu yàlla def nañ ma koy jóg di ko julli di ñaanal waa réew mi ak samay doom ak samay doom ak samay mbokk waaw ak samay xarit sant seen doom mu ne dëkkal ko dina ñaan yàlla ma defee xol boobu may sotti sa longo di saat fii ba Mourtani fii ba France fii ba lépp ma mhm. woo téléphone soo dugalee li ma war dugalal après ma lay seetal mhm. waaw. man ñi nii nii seet bi seetlu ku ñëw jàkkaarloo ma fi 1000 francs nga laay seetee fekkee da ngaa nekk bitim seetal la mhm. fekkee nag fii ak Ndakaaru yooyu 2000 seetal la waaye fekkee ñëw toog fi sama kanam 1000 francs nga laay seetee ndax adduna bi dem toll noonu toll boo xam ne neexul da nit ko koo xam ne li ngay def ci cin téen na la kon boo defee lu weesu tamit day métti rek moo tax ma damaa am ci liggéey bi may def yërmande waaw. Euh, mbër yi. gi de yenn saa moom man maay digg rek am ñoo xam ne dañ may sama xol dañ yëkk ci ñoom ñuy sama xarit wala man de xaaral ma xool yurndi làmb bii dégg naa ko mais duma ma ci wax sax lu tax du ma ci wax lu bari mooy xëy na boo ci waxee làmb réewul bu ti ko nag njaay. mu mhm. ngi mel na diggante Balla Gaye tey ak eh, Bombardier tey bu ñu daan bu ñu bëre woon tey tey tey gi Balla mooy daan bis tey bi mais ba day dem bu yàgg sëriñ xàccante ku nekk da nga am sëriñ muy wëlbatiku mais nii nii nii saa yi sànq damaa julli naa pare may xool rek man xaaral ma xool Balla Gaye comme man yàlla def ma bëgg ko bañu ma sax ba Bombardier mi ko nekk ak koo xamante ne moom ma nekk sa xol man danaa xool yàlla xam ne bi ma xoolee maa gis Balla Gaye taxaw ci ndam mais xam nga euh, bëre ak fur bala yem. Mm-hmm. mun ngaa nekk ci ndam ba heure bi nii war a bëre serigne bu ngànd jógee fële wëlbati affaire bi mais comme nit ki ñëw ci yow nak naaj na la woo lu ñu ko wonul man nak walu lamba sam papa da ci doon def lu ay jéego jéego yalla daf man tam ma ngi ci ay yi secret yi ma yor mais comme ñi ñewu ñu nak ah docteur nak mom du fa lu ñu wonul ak ben mbeuru làmb bo xamni amna combat ñew fi nga jëflanteel mom mu am aha kay amna na ku fi nek eh, fi ci koñ bi mhm. eh musna ñew di bëre ma xolal ko nak yow da yaay daan inshallah mhm. bis jot mu ñewat mu ne ko yaay daan xamna fii la nekk muy yàlla def sama doom sama xarit MC mm-hmm. eh, ñëw na fi ma xoolal ko defal ma ko nag dama xoolal nag ndax àdduna moom loo ciy wax dëgg rek moo neex yàlla waaye mm-hmm. ñëw na fi ma xool ma ne mbir MC bi sa loxo la nekk yàlla dafa MC dem daan mm-hmm. waaw. Eh, bi nga xam ne moo dox ci diggante Balla Gaye ak Bombardier ñoo ko nii nii nii bu ñu sëggoon bët ndam bi ci kan ndam bi Balla Gaye ko yor ci loxo mais am nga làmb rek day wëlbatiku. di leen ñaanal ñoom ñëpp ñu am jàmm am salaam di ñaanal na bala mi nga xam ne maam moo maam naa ko def sama xol def ko sama yàllaa def lu def ko ci sama xol mas naa ko woo téléphone waxtaan ak moom xam ne woon moom laay nooyee li ma gis laa wax wallaay la azim su ma gis ma ko wax léeg-léeg nga toog ba ci yàgg ñëw fii ne la dama wala mooy am combat nga man mu fi nit ñëwee dama defal ko mu am waaye xam nga nit ñi dañ ma xamagul bu baax mhm. loolu mooy problème bi ndax boo waxoon tey nit ñi ñoo ñëw fii tuut tuut rek moo fi ñëw ne nit ñi xamaguñ ma bu baax moo tax kon comme nit ñi xamaguñ ma bu baax nag damay raam ndànk rek yàlla xam na ne sam papa ma wax rek laay def. Mhm. Xadija bul yàkkamte naxuma la. Mhm. comme sam papa ni ma mu ma sama yaay booy ne naxuma mhm. kon damay def ndànk ndànk rek euh, loo gis lu jot yomb. xam naa ku fi ñëw daal lu fekk am na lu fi nekk. ñu bokk ko macha allah macha allah. Ah, ah lii de moom li fi nekk mooy bii moom mooy mooy faj ay affaire ngóora lii nii ci laa ci toggale góor ñi eh, di ko togg na ci cin di ci def bii am na yeneen bagage yoo xam ne mu ci biir génnewuma ko lii tuuti laa ci génne pour won adduna bi ak ñi seetaan lii su may toggal nit daa ko ci toggal man juróom-ñaari cin yàlla def na moom laay toggalee góor gu néew doole Eh, su ma la toggalee nag ci cin laa koy togg yàlla def na paax laa koy toggee du may togg du am xorom du may togg du am suukar suma la toggalee yow sa jabar yéen a koy bokk macha allah ngi lekk paaka bi nag du daanu ndax booy toggal nit ki ba paaka bi daanu bu dee bu wër la bu dee daanee woon doole dootul mën a wér moo tax togg bu metti ñeent ci nii laa ko sànkal la ñett ci ni ci des ginaar la olof ginaar olof la ñu togg nga toggal borom yàlla def nag yàlla may ko jàmm salaam waaw moo jawaram ñoo koy bokk nekk lekk nag affaire bi nag xaw naa kii tuuti nag day fayu ndax boo ci toggalee nit ki fay lu mu la war a fayal day dellu sa yow wala mu dellu sa doom wala mu sa jikkar moo tax xaw naa saf tuuti nag waaye ku fi ñëw ñu bi moom ki ñëw fii bëgg affaire sàngatu wala affaire bayre walla xale yi nga xam ne dañu tiit butéel bi. xale yi tiit nga xamante ni utiwaat seen biir yi daw ñoom ngay defal man xale bu biiram di daw bu ëstee fii ñi su ma ko mayee li muy naan ak li mu diw tiitaange beeg biir daw yëpp day dañ yëpp nag li may jot yomb yëpp dama koy def te ba ciy def nit ñi di gis waaw man xale yi bu fi ñu dara méttee dama leen defal yàlla def affaire yu taaxu arrêté wàcc biir bi daw yàlla may na ma ci hmm. waaw sëy yi gaaw a tas euh, di nga ñëw ci kër euh, njikkee yi daal di la yëkkati foofu ñoo lay teral njikkee toujours ñoo lay jël si mais ñoo lay génne ci kër gi su yóbbu bagage yi yegg yóbbu kii jote ñoo lay jël si ñoo lay indi bagage yi waaye yenn saa yow mi jigéen ñëw tamit yaa ñëw pour tas kër gi mais jigéen dafa war a ñëw sëy ci kër gi toog sëy te yàlla tax waaye am na jigéen bu ñu sëyee ci kër njaay bu ñu sa fekkul euh, xaalis bu fa nekkul bu ñu yaakaaroon ñu génn daal daw ñibbi am na jigéen yoo xam ne bu ñu sëyee ci kër fekk kër gi bari nit ñu daw ñibbi am na ñoo xam ne dañoo seen njëkkee ak seen goro yu sonal leen kon maa ngi wax xale jigéen képp wu dem sëy na nga toog te mu xam ne sëy neexul sëy balaa nga gis neex ne balaa nga digg njaag ah ak kon nag xale jigéen bu ngeen sëyatee da leen muñ muñal seeni jikkar muñal seeni goro ñëpp sëy bi lañu bokk jikkee yi xale góor yi rakk yi ñëpp sëy bi lañ bokk ngeen nekk puso rek di ñaw bañ a nekk lay set jéegu lay set moom macha allah baaxul jéegu lay set moom da yàq kër waaw fi ne nii moom ñaari téléphone laa mais benn bi laa gën a jàpp ne fa benn bi démb rek la ñëw numéro bi il faut ma bind ko waaye yi nga xam ne mooy numéro bi ma yor ñëpp xam ma ci mooy 77 504 03 24 77 504 03 24 77 504 03 24 am na whatsapp ñaari bi am nañu whatsapp mais benn bi dafay doog ñëw démb jàpp ko mu numéro bi il ma jàpp ko bind ko waaw. waaw fii nag góor ñi li fi jot a ñëw ci faju sama xoolee ma ne góor ñëw ëpp góor ñi dañoo pare problème néew doole ak teel a yegg loolu bari na ci góor ñi jigéen yi nag am na saa ñoo xam ne dañu ñëw fii seel wala ñu am problème ñoom tam ñu ñëw mais góor yi moom ñoo gën a am problème su xoolee adduna bi tey góor ñoo am problème góor na dafa war a tee boppam réglé ndax tamit feebar boobu may faj tamit bu fekkee góor kii dafa xaw a lee tuuti moo koy indi soo ko amee da ngay wala si jabar ñu wàllante ñoom ci kër gi waaw lu moo tax góor gu nekk war ngaa yem si li nga yor jigéen bi tamit yàlla def mu yor ci mu yem ci li mu yor waaw. dañu teel a foo xam nga boo teelee foo da ngay teel a néew bu nekkee xale bu góor amagoo jabar nga nekk ci jigéen yi ngay foo ngay foo ngay foo nga la ci jigéen boo xam ne dafa dem ci adunam yëpp ba jeexal lay jam feebar bu la jamee feebar loolu mooy waral ku xale yu góor yi di saw deret wala ñuy tuur ndox muy xonk wala ñuy am ay perte balance du ñu am problème xale yi muñ boo teelee foore da ngay teel néew kattan balaa ngay am ay ay ay 40 ans da ngay néew waaw waaw loolu la liggey bi nag macha allah ci sama kër jikkar nga xam musa Moussa Ba moy sama jikkar ma nga fi ci geureum gi fi la tok fi la koy defé ku ñëw fi nga may fekk wala nga wome telephone nak man nga jaari ma bari activité ndax man tooguma rek yem ci li ni damay def yenen ak yenen kon nak man moo tax ku soxla bu ma telephone ma tok xaar la fi nga fekk ma fi euh, di nuyuwaat nak sama dik yu bax yi ñoom ne maam la jakkarlo keur ku ci mel na ñoom Kara Sarr ak Dieynaba Gaye ñeeg ñoom ñoom Fass Seen ñoom yaande sama dëkk yu nekk ñu baax ñi koñ bi ram ñaw rama seen ñoom faal soog nga xam dañuy jàppale sama jikkar ñoom jikkar jeena ba wàdd ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di ñaanal waa cité dañoo ànd rek de doon benn waaye waa ñàgga cey waa ñàgg ñoo dalal fii ndax buñ ñëwoon sonal ñu fii dañuy sonn waaye waa ñàgg bu ñëw sonal ñu benn yoon duñu nax sama rajo bi nuyu Thierno Amadou ñi nga xam ne falaay dafay émission wér wérle eh, wér wérle mooy cellal fa laa koy defee si mbas bi daal ba léegi laa defa laa di commencé waatuma mais fa laay defee émission Thierno yaatal ma foofu lool du nuyu Abdourahmane Thiam di nuyu ñëpp di nuyu nag waa cité bi ak waa ñàgg ak waa li ko wër ak waa bu noo bi xam ne dama fay jëflante ay nit di nuyu nag Paa Dugaar nuyu ñoom Ousmane di nuyu ñoom ñëpp di nuyu déen yi di leen nag wax ku fi ñëw rek ñu bokk lu ñuy liggéey di nuyu waa la Lagos gi eh, waa Lagos TV bi ma leen ñaanal njaay ma lay ma ñaanal yàlla nga egg fi nga war a egg si li ngay def ma lay ñaanal yàlla nga yegg yaa xam fi nga bëgg a yegg yàlla yeggale la fi ndax yow dangaa ñëw fii rek defal ma noonu xam naa yow ku baax nga bu doon keneen danga naan def fay xam naa dañu koy fay nag xam naa nag yëf fii ku soxla dangay fay waaye man danga maa defal noonu man nag maa ngi santal di la ñaan ñaanal di la ñaan sa njaboot yàlla def ci barke di ñaanal waa ñàgg gi ak waa taw Tawfekh ñàgg gii nag di ñaanal sama mère bu soofu bi Papis Diop Papis Diop nag man macha allah macha allah du ñu jàppale fii dañoo jàppal ndax saa yu defal conférence jël alalam def ci kon nag ku la defal nag boo ko waxul ba lim say noonu de ko ci boolee kon nag Papis Diop maa ngi lay ñaanal nag yàlla defal la jàmm defal la salaam di ñaanal dimbal ka sama càmmiñ ju jooju nga xam ne moom dimbal fii moom ay jàppale fii lu baree baree bari di sant nag sama waa groupe bi nga xam ne maa ko jiite fii muy cellal bu ne afangalu di sant nag sama group olof bi nga xam ne maa ko jiite muy groupe wér wérle di ñaanal ñëpp nag sant ñëpp mbokki internet yi yéen a ko déggandoo euh, moo nekk noonu bari na yoo xamante ni wax na ni dakoy faj euh, te am na solo lool lool lool euh, kon ñu di leen jox dig daje ba beneen.